ñëpp lay tudde laa yi ci arab bari na la arab dina wax laa yi nee na laa tadxul fil bayt laa boobu bokkul ak bii de bul dugg ci néeg bi mais bu ci kanam mën ngaa ñëw mu ne la duggal nga ñëw rek fekk ko sax mu ne laa tadxul bul dugg nga ñëwaat mu ne waaw uduxul duggal bokkul ak laa bële boobu bu la teree du la mayaat mukk waaw laa ilaha amul benn buur bu ñuy jaamu mu yoyoo jaamu nga illa allah ku dul yàlla kon nee nañ maanaam il faut kon da nga koy xam maanaam laa ilaha illa allah bala nga koo wax day fekk nga xam ko moo tax borom bi ne shahida allahu annahu laa ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi déggal wal wal malaika wa ulul ilmi yàlla bi mu jëkkee boppam ne moom moo njëkk xam laa ilaha illallah lu muy tekki ñaareel ba malaaka yee ko xam ñetteel ba borom xam-xam yee ko mën a xam benn nga bokk ci borom xam-xam yi wala nga laaj borom xam-xam yi fasalu ahla zikr in kuntum laa taalamoon laa taalamoon yow bokk ci borom xam-xam yi mais demal laaj leen su ko defee nga daal di xam borom bi boo gisee lislaam wax nañu ne laa ilaha illallah moo ciy dugal nit waaye alquran bi muy wàcc jëkkewul laa ilaha illallah ah xam nga kon ma doon nga ne xanaa saar yu war a njëkk a wàcc alquran pour dugal nit ñi ci lislaam daa waroon rek bisimillahi ilaha bisimillahi rahmani rahim xooloo laa ilaha illallah déedéet mais daf ne iqra jàng leen ndax jàng mooy yoonu xam jàng mooy yoon ba ñu jàngee ba ca kanam nag ba xam-xam bi ñëw mu ne faalam annahu laa ilaha illallah kon laa ilaha illallah ci mu rot ci alquran faalam moo ko lartaayal faalam ci baatu ilmu lañ ko teg soo demee ca suratul muhammad daf ne faalam xam leen ne xam ka doon iqra bu yàggee faalam dana mën a am ki doon jàng di jàng bu yàggee dana xam comme xam na léegi nag ñu ne ko kon laa ilaha illallah mii ne la kii tabax xam nga kii tabax nga romb ko muy gas fondation fondation taxu koo jóg li ko tax a jóg mooy couleur bi parce que dal bi moo mën a téyew naaj moo mën a téye taw mais kenn mënu ci tàmbale boo gëstu fondation bu ko téye du dem kon bañ naan iqra fondation la ñuy gas mais kuulee guñu bañ ne laa ilaha illallah nag lañ ko kuule fa alam annahu laa ilaha illallah waaye bu ñu tëboon tëb di ko kuule te amoo ay kenn yu ko téye dal bi fu muy daanu ci kaw nit ñi ah kon tawxiid ci xam-xam lay tege te borom bi tàmbale iqra jàng leen bismi rabbika allati xalaq su ngeen jàngee ba xam nag tawxiid daal di mën a ñëw tegu ci kaw xam-xam bi su ko defee nag muy muy xam-xam boo xam ne yaqin lay doon moo tax gannaaw xam bi ñaareelu sart ba mooy yaqin tawxiid boo ko xamee parce que xam-xam day ay day ay étape xam ay degere la bi ci gën a feebal mooy defe xam nga defe xam-xam la mais nag xam-xam bu feebal la nangam nga ne dama koo defe dañuy wax ne dëgg buñ ko xaajee ñeenti xaaj nga xam benn bi kooku mooy defe soo xamee ñaari kooku mooy sikk nga ma nangam daal maa ngi koy sikki sàkk nga xam ne xaajal nga ko li nga ci xam ak li nga ci xamut a tolloo kooku mooy sikk soo xamee ñetti xaaj yi kooku mooy njort ñetti xaaj yi boobu ci xaw a gën a tane nag soo xamee lépp nag mooy yaqin nag soo matalee ñëpp nag mooy yaqin moo tax borom bi nag kallaa law taalamuuna ilmal yaqin ilmal yaqin xam-xam bu sant yaqin kon ilmal wahmu am na ilma shakk am na ilma zanna am na mu ne nag ilmal yaqin laa soxla man su ngeen amoon ilmal yaqin kon la tarawunna al jahim xam nga ñi nga xam ne ñu ngi leen gëm nañ sawara ba noppi di def luy yóbboo sawara dañ ca amagul ilmal yaqin ah defaguñ ko defuñu ko parce que police bee ñu gëm gis bu set ñi nga moytu lu leen fa yóbbu parce que moom gëm nañ ko ba ilmal yaqin xam nañ ne ma nga fa daan jii nga xam ne day matta ilmal yaqin nga ci am doo gis kuy dem di ko jox loxoom parce que ilmal yaqin la ci am kon nag safara ku ne gëm nga ne safara am na ba noppi di def lu koy yóbboo ilmu bi eggul yaqin borom bi wax na ko dañ naan ma nazunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustayqin in nazunnu illa zannan mais suratul jaafiya bu ñi nga xam ne dañ doon sikki sakke yowmal qiyaama ak safara dañ naan in nazunnu illa zannan nun ko dañ ko jox ko dong wa ma nahnu bi mustayqinin amuñ ci woon yaqin amuñ ci woon yaqin borom bi dañ ne am leen ci ilmal yaqin bala ngeen ci am aynal yaqin ñaar yooyu rek moo am benn nga xam ko waajal ko wala xamoo ko waajaloo ko nga dem gis ko boobaa nag del si day wees nee naan walaw anna lanaa karra ay bu ñu amoon ak delluwaat bu ma amoon ak delluwaat adduna dinaa jëf lu bokkul ak la ma doon jëf borom bi ne kàlla mënatu la nekk ndax mbooleem lu nekk yowma qiyaam rek leeraloon nañ la ko ba mu leer nañ ci alquran ak wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nëbbu fa dara lépp lu ko mën a gaar nit rek wax na ko ci alquran moo tax mu ne kalla law taalamuuna ilma al yaqin la tarawunna al jahim su ngeen amoon ilma al yaqin man ngeen a toog fi mel ne yéen a ngi jàkkaarloog safar waaye su ngeen ko mënul ne summa la tarawunnaha nag ayna al yaqin su fekkee xam-xam mënu leen a may ngeen xam ne safara am na bis bu ngeen dee ba ñëw nag ngeen teg ci seen bët xam ne lu am na moo tax borom bi naan wa yawma yu'radu alladina kafaru ala annar alaysa hada bil haqq gis na question bi lañ yàlla di posé xam nga ñu weddi soo leen soo leen waxee ñu la safara amul suñu demee nag ba yàlla ne leen daas ci biir sawara ne leen est ce que sawara am na ah afasihrun haada ndax ak njibar la xam nga nee nañ ak njibar la waaye kuñ dëkk ci biir sawara lakk ñu ne ndax dañ lay njibar wala da ngay lakk afasihrun haada am antum la tubsirun ñu naan balaa wa rabbina ah kay gis nañ ci yow yàlla kay ne lii safara la léegi ñu doog a gisal yàlla foofa balaa wa rabbina c'est trop tard c'est trop tard kon ñaareelu sartu tawxid mooy na nga ci am yaqin moo tax borom bi ne innama almuminuuna alladina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartaaboo gën summa lam yartaaboo ñi nga xam ne gëm nañu yàlla gëmub yonentam te amuñu nag lu ñuy sikki sàkkat amuñu lu ñuy sikki sàkkat xam nga nag yaqin bi nag ci muy feeñe mooy su demee ba opposé wu ak say intérêt iman bi dem ba nar a jël sa bakkan iman day jël bakkan saxaaba yi lu ci bare bare bare ci ñoom ci jihaad la ñu def te iman moo leen ko laaj foofu nag soo ci amul yaqin nag foofu ngay delloo gannaaw da ngay mujj ne jëru ko fi mu ne ñàkk yaqin bi moo tax fi mu ne coono booy am ci diine ñu ne la nag jëru ko da ngaa dagal rek da nga koy yolomal jëru ko te boo waxoon ci diine wala nga am ci problème bu tax ñu yendoon la police sa bopp yëpp bu ñëwee dañ lay yedd lan la yëm mbir mi nag jëru ko nag day xaw a waaye fal rek di jëru ko te yow moo moo ko ba di ko waaye fal te kan la ñuy tuddee ak ak diital boo demee lu waaye tooy la waaye nag fu dara nekkul loo fa def dafay dal di ëpp ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa séddale woon ay maratib ne ku gis lu bon na ko dindeeg loxoom mooy na ko dindeeg doole amoo doole jokko dinde ñaareel ba mu ne na ko wax ak ko làmmiñam mënoo ko wax ak taw làmmiñ boo ko defee ñu lor la lor juudul asal ñetteel ba nag mu ne na ko naqari ci xolam mu ne boobu nag mooy ki gën a feebal ci ngëm yàlla wa zalika adaful iman kon nag soo naqarloo mbir ci sa xol ba am te problème ñu naan la da ngaa war a wayefal looy wayefalati mooy adaf boo bay bi gën a wayef lii neexul yàlla nga ne man anduma ci naqari na ma ñu ne kon da nga koo kontal ba teg la ca coono coono boobee mënoo am lu ko gën a way foofu nga mën a yem ndax gannaaw mënoo wax mënoo jëf la ca tegu mooy na la naqari julit lu mu gis lu ne te neexul yàlla taxawaay bii war na ko caam bu amee doole yor baat na ko dindeeg dooleem ak baatam bu mu ragal folliku bu mu ragal ñàkk fas ba mu amoon bu fekkente ne boroomu làmmiñ la boo xam ne bu waxee ñu déggal ko na wax bu mu ragal la ko tey teg ci coono ndax kat dëgg moom foo ko waxee coono ngi ñëw moo tax borom bi ne watawaasaw bil xaq waaye watawaasaw bi sabr na ngeen dénkante dëgg waaye na ngeen dénkante muñ coonay dëgg dëgg dafa am coono fii ci àdduna waaye muj gën ak moom bànneex lay doon boo xam ne yàlla rek moo xam fu muy yem ñetteel ba ci sarti laa ilaha illallah nag mooy ixlaas laa ilaha illallah boo ko waxee na sell bu ci jublu benn intérêt àdduna bul ne damay dugg ci diine ji ngir ñu may ma kii wala ma sëyëg kii wala borom liggéey bi nangu maa jël ci liggéeyam ndax ne moom moom du jëflante ku dul ay julit kon naa wax laa ilaha illallah pour mu nangu maa embauché wala daal julit ñi seen société bi naa wax laa ilaha illallah pour ñu enquêté ma ci seen biir boole ma ci seen bopp wala daal yaa xam ban intérêt moo tax nga bëgg caa dugg loola boobaa manqué nga tartub laa ilaha illallah moo tax Abu Hurayra laajoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw kan moo gën a yeyoo sam ramm bu yowmal xiyaamee mu ne ko day jàppoon naa ne laaj boobu kenn du ma ko njëkk a laaj kenn du la ko njëkk a laaj waaye ki gën a yeyoo samam rabu yowma alqiyam man qaala laa ilaha illa allah xaalisan min qalbi aw nafsi ci wax baatu laa ilaha illa allah tam sell ci xolam kooku nee na yowma alqiyam moo gën a mérité yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ko am ñeenteelu sarta ba nag mooy alxabool mooy nangu nag nangu nangu li laa ilaha illa allah wax sa xol nangu ko lépp nga d'accord ci mooy li diine santaane lépp amul ci benn ñu guuru xol nangu laa ilaha illa allah xam nga am na ñoo xam ne sax ñi ngi ci diine di def mais li ñuy def seen xol àndu ci bu ñu ne jigéen juy muuru loolu du leen neex jàpp ne daal loolu xatal la wala teg jigéen ji coono la wala fiir la waaye daal warul woon a demee noonu wala même jigéen ji sax même bu demee ba di ko defi sax def ko rek ngir ñu jàppe ko ab jullit waaye xolam tàng ci ne buñ ko bañoon a santaane daal ci la gënoon naka noonu ca góor ña itam li yonente bi sallallahu alayhi wasallam digle ci ne bu ñu guddal ay yére ba mu ëpp dañuy yar ay sikkim am na ñoo xam ne loolu neexu leen dañuy dem sax ba di ko wax di saboté sax ku koy def kon kooku laa ilaha illa bi ngay def parce que laa ilaha illa moo ëmb loolu ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko santaane kon soo amee dara lu la cay naqari donte yaa ngi koy def donte yaa ngi koy def waaye naqari na la amoo ci ak féexu xol loola bu boobaa dafay manqué laa ilaha illa allah ndax amoo ak nangu maanaam da ngaa jàpp ne lii amoon na lu ko gën loo xam ne moom lañ waroon a santaane wala lii ñu tere waruñu ko woon a tere baaxoon na tere gi ñu tere jaxasoo diggante góor ak jigéen ak bu ñu am benn relation lu dul jaar ko fekkal islam tërale am na ñoo xam ne neexu leen noonu boo ñëwoon ci ay jigéen wala jigéen jox la loxo joxoo ko loxo ñu bari dañ lay daal di mere yow da nga ko toroxal ndaw si yow da ngaa nangam nangam ah ah léegi def li neex kooku ak nag def li borom bi tabaraka wa taala digle lan la ci jullit war a def wa ma kaana li muminin wala mumina ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiyaratu min amrihi daganul jaaduwul ci ku gëm yàlla ku góor wala ku jigéen bu yàlla dogalee mbir muy amati lu muy tànn amatul soi wa man yaasi llaha wa rasulahu faqad dalla dalaalan mubina kon ñeenteelu sart bi mooy xabool boobu mooy nangu juróomeel ba nag mooy al inqiyaad nangu nag góog gu la def xam nga mën ngaa nangu ne ah loolu de moom baax na lool waaye nag yow dafa góogu mooy wommat boo nangoo da ngay nangoo wommat nag nangu l'islam wommat la jëme na fa nga xam ne foofu la borom bi tabaraka wa taala bëgg te mooy aljanna ndax yàlla ñëpp daf leen a woo pour ñu ñibbi siwaat aljanna ndax doomu aadama yëpp aljanna la jëkkoon aadama bi ko yàlla bindee daf ne ko uskun anta wa zawjuka aljanna ñëw ko dugal àjjana visité mais dëkkal la ko wax bi mu génnee nag bi mu defee la mu def ba yàlla jaarale ca génn ga borom bi ne wallahu yadoo yàlla woowaat na leen yéen ñëpp ila daari salaam wa yahdi man yasha nag ila siratil mustaqim yéen ñëpp yàlla woowaat na leen kaay leen ñibbi siwaat ci këru mucc gi yoon wi xàll na ko ba mu leer samp ci ay tableau yuy giide nit boole ci ab gidd buy wane yoon bi yoon wi mooy l'islam tableau yii wane di la indiqué mooy alquran alquran foo eggee ci ab croisement boo xam ne xamoo fu tëli yi jëm boo dégloo alquran ma defal la felas bi jëm aljanna mu ne lépp lu ñuy soow naan dagan naag daganut ak ndaa jaar boo dégloo alquran rek moo wax la te nga ci war a jaar nga xool tableau bi am ne solo tukki ci réew mi fi nga xamoo fi tableau yi rek moo lay indiqué da ngay dem ba fi mu ñoo xam ne ne tëli bi jëm ñooro fii la tëli bi jëm nii fii la nga xool tëli bi daal di continuer dem alquran yi noonu lay indiqué yoonu aljanna moom it soo demee bay carte geek caaxaan yeeg ñu naan ndax dagan naag daganut ak ndax dana maye xaalis ak alquran boobu daal di samp tableau daal def feres ba jëm aljanna ku jëm aljanna daal jaaram bi koo xam ne nag bëggoo dem foofu rek sawar a nga jëm nag abbay moo nga jëm ci jëm feneen bi moo tax kon lépp lu borom bi tabaraka wa taala di tere da ngay gis aaya yu ko leeral nañ ci biir alquran yemuñu ca waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag dund ko wane yoon wa ba suñu borom ne wa ma ataakum rasulu fa xuzuhu wa ma nahaakum anhu fantahu juróom beneen sart ba nag mooy almahabba mooy bëgg laa ilaha illa allah bëgg laa ilaha illa allah nag mooy bëgg ñooñ laa ilaha illa allah borom a ngi naan wa min annaasi man yattaxisu min duni illahi amdaadan yuhibbunahum ka xubbillah waaye walladina amanu nag ashaddu xubban lillah nee na am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy wut leneen di ko dendaleeg yàlla bëgg loola comme ni ñu bëggee yàlla waaye nee na ki gëm yàlla moom mbëggeel gi mu bëgg yàlla moo fare kaw lépp moo fare kaw sax bëggeel gi mu bëgg boppam xam nga kii nangu ñu dóor ko jaasi ci yoonu yàlla pour mu faatu kon kooku yàllaa ko gënal boppam ndax nangu naa dee ngir yàlla kon kooku yàllaa ko gënal boppam kon nag keneen taxul ñuy wax ku gëm yàlla dëgg wala dina amanu ashaddu xobban lillah waaye nag soo demee ba sa bopp diina saa bu opposé ak sa bakkan nga toppi sa bakkan su opposé ak li say way jur bëgg nga toppi say way jur su opposé ak li sa waa xeet bëgg nga fekki saw xeet su diina gi naree opposé ak sa liggéey nga toppi sa liggéey kon yow sa laa ilaha illallah loolu bëggoo ko diine laa ilaha illallah da ngay jar nga sacrifier lépp lu nar a taxaw ci yoon bi nga sacrifier ko borom bi lim na ko qul in kaana abaaukum wa abnaaukum wa ixwaanukum wa aswaajukum wa asiratukum wa amwaalun iqtarabtumuha wa tijaratun taxsawna kasaadaha wa masaakinu tardawnaha ahabba ilaykum min allahi wa rasuli wa jihaadin fi sabili fatarabbasu ata yati allahu bi amri jeex na intre yëpp tudd na ko foofu qul in kaana abaaukum su fekkee bëgg a déggoog say baay bañ ñu ne waa ji kat dafay andi loo xam ne noonu ay baayam xamuñu ko woon wa am naa ukum wala bëgg a déggee say doom ba bàyyi leen ci lu leen neex doo leen sax ñemee yee fajar pour ñu julli bu dee jigéen ñi buñ la rombee sollu gàtt doo ñemee wax ne damay bañ ñu bàyyi mat damay bañ ñu ñàkki doom te ñoom laa yaakaar ñu liggéey ngir yor ma ba tax na nuñ mel rek dama leen ciy bàyyi wa aswaajukum say soxna buñ dee xeesal nga ne damay bañ ñu dem soxna yóbbut dafa jafe buñ dee lëttoy mees noonu wala yow jigéen de fekkee sa borom kër nekkul ci lislaam nga ne borom kër daa jafe naa fi toog rek donte waaju bon la wa asiratukum wala sa famille boo àndul ca caaxaan ya ñuy def ñoom ñu daggale ne bokkatul ci famille bi wa amwaalun iqtarabtumuha wala alal joo am nga ne man kat bu ma ci dundee diine bu leer danaa ñàkk alal ji wa tijaaratun sax saw na kasaadaha wala nga ne sama commerce bi wala sama métier bi bu ma dundee lu wuuteeg li nit ñuy dund kenn du tuma jënde ci man kenn du tuma liggéeyloo dañ may daal di mele ne kii dafa contre suñ diine mu ne bu fekkee yooyu nag moo la gënal yàllaa ko yonentam xaaral ba yàlla jóg donc aaya bi dafa leer ahabba ilaykum bu fekkee moo leen gënal min allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu xaaral atta yati allahu bi amri ba yàlla ñëw ak mbir bis bu faatu ñëwee yooyu nga waxoon yëpp nga leen ñàkk ah bu faatu ñëwee ñàkkoo sa place fa nga doon liggéey sa jabar tasu ñàkkoo say doom ñàkkoo sagoo say wayju ñàkkoo sa kër exilé nañ la yaa xam étage nga amoon wala loo amoon mais génn nañ la ko exilé la ci gannaaw dëkk ba lañ lay exilé fa lañ lay yóbbu kër gi sax doodo ci dëkk waxuma la sax ñu sol la ci gannaaw kër gi waaye tey àll ba lañ lay yóbbu kon yi nga ne woon moo tee nga jaar ci yoonu lislaam lépp bis boobu tàggoo nga ak moom moo tax borom bi wax na ko ñooñu bu leen malaaka yi jël si fekk leen ci lu naqare yàlla inna lasina tawaffaahumul malaaikatu zalimi anfusihim gis nga ñu tooñ seen bopp xaaloo fii nga kuntum malaaka moom daa gertu ne sawara ku ko yëg doo fa dem moo tax ñoom buñ gisee nit kuy bëgg a dugg safara dañuy jaaxle moo tax malaaka yi gardé sawara bu leen nit ñi rombee di dugg dañ naan alam yaatikum nazir ko yéen xanaa sawara kenn di leen ko waxul woon xaalu balaa qad jaana na si waaye fa kattab naa noo ko weddi woon wa qulna ma nazala lahu min shay in antum illa fi dalalin kabir ñañu daan wax safara dañ leen wa da ngeen a réer da ngeen a soxar waaye safara amul wala safara bu amee itam yàlla day jéggal ñëpp man ñu bari loolu la ñu wax yàlla bay bari na yërmande ñii dañoo soxal rek yàlla du lakk kenn du bind nit ko noppi di ko lakk te borom bi ne la am la anna jahannama min al jinnati wan naasi ajmain da koo géñ de laam bi géñ la géñ naa ne danaa feesal safara ak nit ak jinne naa ko feesal safara fokk dina fees yow nag fexeel war nañ la ñi ngay def ba mucc ci ni ko dul feesal yow waaye nag nga ne yërmande yàlla yaatu na yàlla ne na sama yërmande kay yaatu na moo ko waxal boppam wasi at rahmati kulla shay waaye ne dama ko joxul ñëpp fa sa aktubuha lillatina yattaquuna wa yutuuna zakat wallatina hum bi ayatina yuminuun allatina yattabicuuna rasul annabi allati yajiduunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil yaamuruhum bil maaruf wa yanhaahum anil munkar nee na sama yërmande ñëpp ci xaj waaye dama koo jagleel ñi nga xam ne dañ maa ragal di taxawal julli di topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ñooy dugg ci sama yërmande bu dee loolu ci tëli bi boo fi boo fi taxawee lay romb ci oto yoo xaj kenn xamul nu mu toll mais mais duñ la yóbbaale oto yoo xam fekkoon ne oto boo xaj boobu la romb rek yóbbu la kon kay kenn duwut oto ah waaye yërmande yàlla itam yaatu na waaye nag dafa am ñu mu ko jagleel yërmande adduna jii moom la wutalul baaraam kooku moom ñëpp la ciy jox amma yërmande alaxira nag daa am borom wa kaana bil muminina rahiman way rahim fii nag rahman la ñëpp a ngi ci biir amma rahim nag bil muminin wa kaana bil muminina rahima kon bëgg laa ilaha illallah mooy nga bëgg ñooñ laa ilaha illallah ñu gënal la ku ko dul wax ak lu mu la jege-jege ci mbokk abu ubayda amirul jarah ci xarek badar moo rey bàyyam bàyyi boppam moo ko rey ci la aaya bi wàcc ne laa tajidu xawman yuminuuna billahi wal yawmi al axir yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasulah walaw kaanu abaahum déggal walaw kaanu abaahum aw abnaahum aw ixwaanahum aw asiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman ñooñu ñoo am matarkiinu iman ki nga xam ne ku gëmul yàlla doonte yaay baayam yaay doomam yaay mbokkam gisatul mbokk googu ni muy def beneen yéefar bi la lay def ñooñu la borom bi ne ñooñu la ngëm yàlla marqué ci seen xol abu ubayda moomu loolu moo ko def yi xarak barar ba borom bi tabaraka wa taala wàcce ci aaya boobu kon ku gëm laa ilaha illallah bëgg laa ilaha illallah ñooñ laa ilaha illallah da lay gënal ñi ko dul wax juróom-ñaareel ba nag mooy nga dëggu ca dëggu ci laa ilaha illallah parce que naafiq yi kat ñoo fi dàqa wax laa ilaha illallah waaye jëriñu leen dara borom bi wax ne ida jaaka al munafiqun qaalu nashhadu innaka la rasulullah pourtant loolu naafiq yi wax moom la ñëpp wax innaka la rasulullah wallahu yaalamu innaka la rasulu waaye wallahu yashhad inna almunafiqina la kaadibuun ndeke kon dëgg du jaagee li nga wax ci saw làmmiñ rek waaye li nga wax ci saw làmmiñ mu dëppoog li ci sa xol moo tax bu ñuy taarif alxaq dañ ne mooy al irtiqaadu ljazim almutaabiqu lilwaqia loo xam ne da nga koo fas ba dogu ci boobu ñëpp bàyyi woon yow doo ba ba noppi nag mu dëppoog la am loola muy doog a tudd dëgg mais nafiq bi li mu li mu wax ci walaam bi ne dëgg la innaka la rasulullah kay dëgg la mais lu tax yàlla ne la kaasimoon dañuy fekk li ko waral mooy xol ba moo ci àndu dëggu moo amut lan la miñ wa wax xol ba waxu kon laa ilaha illallah itam bokk na ci ay sartam pour mu man laa musal bu ëllëgee ñi ngi koy waxee ci taw làmmiñ mu dëggoo noonu ci sa xol juróom-ñetteel ba nag mooy sax ci ba faatu ci sax ci asabaat parce que diine amul retraite amul retraite moo xam mag la moo xam ndaw la comme mën a doon da nga ciy nekk ba faatu dikkal la suñu borom tabaraka wa taala lépp lu muy digee def naan nga ne ci bopp wala tamutunna illa wa antum muslimun nga la waay bu leen faatu lu mooy fekk na nekk ngeen ay jullit kon kat ku nekkoonub jullit dem ba ci biir doon mag liggéeye liggéey ba sonn mag ñu bari fi mu ne soo leen waxee lu mel ne suñu mag ñii ñu gis ci tànt bi ñor ay bidaaw mag ñu bari soo leen wax dañu ah boo de affaire bone ya rek la ñun mag ñu ñëw wéy na noonu li mu fekkee ci borom mi xam-xam ak gis naa diwa bënatuñ ma wax lu ma lu ma mën a kii te fekk na du loolu borom bi ne moo ne woon fa inna zikra tanfaul muminin ni nga xamante ne doole tey bu ñu woote woon aw ñam fee mag mi du ne ah man de yàgg na maa lekk ceeb man seen ceeb boobu moom moom moom mënu mënu maa reggale bi yàgg na maa lekk ceeb déedéet noonu yaram bi soxlaa nga xam ne mag mi lu mu lekk-lekk ak lu mu naan naan doonte téeméeri at la am da koy soxla noonu la roogi soxlaa moom itam xam-xamu diine ak lu mu ko yàgg-yàgg dégg daf koy dolli li mel la suuf si rek du ne man ab taw yàgg na maa wàcc ci man ba soxlaa tu ma taw saa bu tawee mu daal di saxalaat gàncax noonu ko suuf si soxlaa jamono bu nekk nag ak lim recevoir ci taw li muy bari bari bari noonu la xol yi soxlaa taw alquranul karim taw wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax kon borom bi ne wa'bud rabbaka atta ya'tiyaka al yaqin jaamul sa borom ba yaqin dikkal la yaqin boobu rek am na ñu mu nax sëñ tubaab koy wax ci masaalikul jinaan nee na yàqin boobu ñeneen dañ ko biree yegg ci yàlla waaw naan damaa jaamu yàlla ba yegg ci yàlla man damay toog léegi dootuma jaamoo ci yàlla egg naa retraité naa egg naa ci yàlla moo tax mu ne wa fassaroo lafsal yaqini bil yaqin fi axiril xijri bila mawtin nee na tuddeewuñ ko dee te dee lañ firi léegi xamal ne yaqin bii du tàgg kon borom bi du wax ca waa sawarañ naan wa kunna naquudu ma al qaidin wa kunna nukasibu bi yawmi din atta ataana al yaqin dégg nga wa kunna nukasibu bi yawmi din atta ataana al yaqin dan doon weddi yàlla ba yaqin dikkalu yaqin mooy dee parce que fi mu ne lii nuy dund yëpp daa fa mel ne gént la soo dee rek ci ngay doog am yaqin parce que adduna daanaka gént la xam nga gént loo gént da ngay yeewu du mel noonu adduna loo fi gis da ngay dem ba yàgg du mel da nga naan kii gone la nga jékki-jékki gis mu màggat kon dafa mel ne gént nga ne kii am na jékki-jékki gis mu ñàkk nga ne kii wér na jékki-jékki gis mu amatul nga ne kii ngi dund nga ne jékki-jékki gis mu faatu yowmal xiyaam nag loo fa xas gis du soppi ko yowmal xiyaam loo fa gis moom noonu la foofu nag kon mooy yaqin mooy daarul yaqin moom moo tax mu ne ataa ataanal yaqin ba yaqin dikkal kon nañu jaamu suñu borom tabaraka wa taala sax ci tawxid ba faatu googu ñëw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne man maata gis nga man maata wa huwa yaalamu annahu la ilaha illa allah daxala aljanna ku faatu fekk jamono bi muy faatu mu xam luy maanaa la ilaha illa allah day tabbi aljanna andi boobu moo gën a matale ñu jàpp ne rek la ilaha illa ku mujjul ci saw làmmiñ doo taxe déedéet la ilaha illa illa allah ku mujjul saw làmmiñ doon amoo sens wax ko bi ngay bëgg a faatu waaye fekk na sa xol moom mi ngi ci xam nga ko da ngay fekk ndax ñi am tawfiixu xëy na bu ñuy bëgg a faatu mën a wax laa ilaha illa moom du ñëpp dëgg la bu mënee ànd ak wax ji ànd ak xol bi fas ko mooy gën a dal xelu ñi nga xam ne ñoo la tiim ndax nag bu fekkee sa xol bi rek la nekk moom waaye bi ngay bëgg a faatu tuddoo ko ah ñooñu mënuñoo xam ba xam ci nga faatu wala faatu woo ci moo tax nag mu ne man maata wa huwa yaalamu fekk mu xam laa ilaha illa allah kooku daxala janna dafay tabbi aljanna kon loolu mooy sart yi nga xam ne juróom ñetti sart yi nga xam ne fokk mu daje nit ki doog a mën a dëggal laa ilaha illallah te xaatitul xakim yi tënkal nañu ko ci ñaari bayte képp daf ne al ilmu wal yaqiinu wal xabuulu wal inqiyaadu fadri ma aquulu wa sidqu wal ixlaasu wal mahabba waffaqaka allahu lima ahabba mu jeex al ilmu da ngay xam lan mooy laa ilaha illallah al yaqiin da nga ci am yaqiin bu leer nañ al xabuul da ngay nangu li mu la digal al inqiyaad da ngay nangoo wommatu def lim la digal al sidqu da nga ciy dëggu al ixlaasu da nga ciy sellal al mahabba da nga koy sopp bu mujj bi nag moom mënoo ko yàllaa la ko may moo tax mu ne waffaqaka allah te mooy sax ci ba faatu ci kooku moom kenn mënu ko garanté kenn mënulu ko sa bopp moom jékki-jékki fii ne man maa ngi leen di waatu ne ci laa ilaha illa allah laay faatu da nga naan ci laa bëgg a faatu waaw loolu moom mën nga ko wax léegi nag ñaan yàlla mu faat la ci moo tax mu ne waffaqaka allah yàlla la yàlla dekool tawfiq nga faatu ci laa ilaha illallah bi nga xam ne moom la sopp moom borom bi tabaraka wa taala kon loolu mooy lañ doon leeral ci shahadatu an laa ilaha illallah bu dee nag tarafu taani bi muy shahadatu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom itam am na ay sartam yoo xam ne mooy tax mu mën a mat bu njëkk bi mooy fokk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga gëm ne moom mii yàlla boo ko yónni ya ayyuha alladina amanu taqullaha fa aminu bi rasulihi wa aminu bi rasuli yutikum kiflayni min rahmati wa yaj'al lakum nuuran tamsuuna bih wa yaxfir lakum wallahu xafuru rahim suñ borom ne yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla te gëm yonentam bi même yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sax dafa nangoo gëm ne moomu yonent la amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi mais bu ci doon sikki sàkka bi ci jariñu yonente bi dafa njëkk a gëm boppam ndax ba jibril doog a ñëw da doon sikki sàkka ndax ndax mbaa du jinneeg mbaa du seytaaneeg waaye nag ba mu demee ne bu borom bi ne ko wa innaka la min al mursalin yow mii ab yonent nga da ngaa bokk ci ñi yónni la doog a nag am yaqin bu wóor ne moom ab yonent la lépp lu wàcc ci moom ci borom bi tabaraka wa taala bàyyi ko kon yonent bi première ak xam mooy dañ koy dëggal gëm ko ci lim andi ñaareel ba dañ koy topp ataa ya ayuha alladina amanu atiu allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum fa in tanasaatum fi cheyin farudduhu ila allahi wa rasul in kuntum tuminuuna billahi wal yawmi al axir dalika xayrun wa axsanu tawila suñ borom ne yéen ñi gëm yàlla topp leen yàlla topp ab yonentam topp nag njiit yi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi leen jiite su amee lu ngeen di xëccoo ci mbir di ca werante bàyyi leen seen i bànneex ngeen delloo ko ci yàlla ak ab yonentam mooy delloo leen ko ci alquran delloo ko ci sunna jullit ñi seen juyoo yëpp bu ñu nangoo a dellu ci alquran dellu ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp dañuy nekk benn waaye rek bu fekkee kenn ku ne da ngay jiital say bànneex wala nga jiital bànneex yi ña la jiite ah nekk benn bu boobaa dana jafe lool ndax bànneexi nit ñi moom bokkul ñetteel ba ittibaaxuhu wattixaasuhu qudwa topp ko def te jàppe ko modèle jàppe ko royukaay ak suñ borom kat def na sart ci ne su ngeen bëggee ma bëgg leen man yàlla toppal leen ma yonente bi ma yónni qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibkum allah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim kenn mu ta am borom bi tabaraka wa taala bëgg la wala bëgg gi nga bëgg yàlla nekk lu wér te toppoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon yonente bi fokk dañuy topp aw doxinam topp sunnaam ñeenteel ba sopp ko nag sopp gu dëggu moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nee na fa wallati nafsi bi yadi laa yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi rawahu lbuxaari nee na maa ngi giñ ci yàlla mi nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom kenn ci yéen ngëmam du mat li fee gënalu ma ko way juram gënal ko doomam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku ne moo la gënal war a gënal sa way jur gënal la sa doom juróomeel ba mooy ixtiraamuhu wa tawxiiru fonk ko ak wek ko teg ko ci kaw ñëpp kenn ku ne ak mbaaxam yaa ngi koy natt ci nu mu dëppoo ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam borom baa ngi wax ne falladina amanu bihi wa addaruuhu wa nasaruuhu wattabau nuura alladi unzila maahu ulaika humul muflixuun nee na ñi nga xam ne gëm nañ ko dëgëral ko di dundal sunnaam topp li mu yeer bi nga xam ne moom lañ wàcce ci moom nee na ñooñu mooy ñi nga xam ne ñooy taxee bu su ëllëgee juróom beneel ba attaxaakum ilayhi mooy lu xew lu nekk nag ñu nangoo dellu ci moom mu atte ko fala wa rabbika la yuminuun atta yuxakkimuuka fii ma sajara baynahum nee na nit ñi seen ngëm du mat li feeg nanguwuñu yow yonente bi sallallahu alayhi wasallam lu xew seen diggante ñu del ci nga atte ko loolu buñ ko nangulul yonente bi sallallahu alayhi wasallam ah gëm giñ ko gëm wala topp giñ ko topp bu boobaa dafay manqué te kon shahadatu anna muhammadan rasulullah ji ñuy wax du mat te bu matul ashhadu an la ilaha illallah ji du mën a mat juróom ñaareel ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam cër yi nga xam ne jullit bi war na ko koo jox ngir wax gi muy wax ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nekk lu dëggu loo xam ne dëppoo na ak ni ko suñu borom tabaraka wa taala digle bokk na ca cër yooyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga wàcce ko ci wàccuwaay bi ko boroomam teg bu ko yéesal waaye bu ko jéem a yokk itam bila xuluwin wala taqsir yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom tabaraka wa taala di ko tànn yónni ko moom moo ko xamleel boppam wax ko ne waxal ne innama ana basharun mislukum li dégg ñoo xam ne siinub teengal ñii wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal du nit di wax naan jaamu na yàlla ay nangami junni at sax ñu doog a bind aadama te loolu nag day juyoo ak waxi suñu borom tabaraka wa taala te diine kenn da cee wërta wax loo xam ne amuloo foo ko teg waxal yàlla lu mu waxul suñu borom mi ngi ko dendale ak bokkaale della dendale ko ak njaaloo dendale ko ak di dox di tooñ ci kaw suuf mu ne qul innama an taqulu ala allah ma la taalamuun kooku bakkaar la bu rëy boo xam ne doomu aadama war na ko wataniku te bakkaar yi gën a rëy daf caa bokk wax ci diine loo xamul ndax wax ci diine loo xamul dana tax nga bàyyiloo ay nit lu ñu nekkoon dana tax nga dugal ay nit ci lu ñu dugul woon ndax bakkaar yi ci ne yëpp suñu borom day wax ne soo tuubee mu jéggal la su ma yatuubuuna min qarib fa ulaika yatuubu llaahu alayhi ba mu def nag bakkaaru wax ci diine loo xamul wala loo xam ba noppi nanguwoo koo wax di wax safaan ba ngir bëgg lu neex nit ña wala bëgg lu la amal yow njariñ lu teew suñ borom ne ñooñu day tuub dong du doy waaye dañuy tuub dem defar la ñu yàqoon illa alladina taabu wa aslahu wa bayyanu dañuy yéwénal la ñu yàqoon dem leeral la ñu lëndëmaloon suñ borom ne ma doog leen a jéggal kon tuub ga dong du doy illa alladina taabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim ma doog leen a baal te xam ngeen ne léeg-léeg kàddu fa muy egg rawatina ci jamono jii nga xam ne yii tasaare kaddu dafa bari sa kaddu boo waxee fa muy daal di yegg pour nga mën faa yeggalewaat kaddu ngay rectifié waat loola dana jafe su ko defee nag kon moo tax luwaay ji wax lu nekk nga war a koo wutal dalil bu leer ci alquran ak sunna ak ci waxi borom xam-xam yi nga xam ne ñoo la ko gën a jege woon parce que kat siyaan gi fi muy balle ku la gën a jege ndox mu jëkk ba fa mu doon balle ndoxam mooy gën a teey sam ndoxam moo tax saxaaba yi fekke woon bi alquran di wàcc fekkee itam ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon dundee alquran di doon wàcc ñooñu seenu déggiin du mën a yem ak déggeenu keneen ñi sa toppaat ñooñu na sa toppaat noonu ba ba muy egg moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon xayrul quruni qarni génération bi gën génération yi mooy ñi ma fekkee di ma gis nga ñooñu jàng aaya bi gis pratique bi ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam foofu la mën a yem di xool yonente bi sallallahu alayhi wasallam muy julli di dégg muy jàng alquran xam nga loolu ku loola faat ki ko fekke woon nag na mu ko xamee mënatoo caa amati néew bu toll bi mu ci amul mu ne su ma la si ne yeloonahum nee na ña ca toppaat di saxaaba di saxaaba buy julli boo xam ne moom gisoon na yonente bi sallallahu alayhi wasallam muy julli xam ngeen ne loola itam ka gis saxaaba daraja ba muy mën a am ak la muy mën a xam ci diine ak nañu doon firee ñoom alxuraan nañ ko doon déggee keneen ku ñëw seen gannaaw doo mën a am néew boobu waaye nag yàlla ci sàmm gi mu sàmm diine tax na ba yooyu yëpp sàmm na ko garde na ko même dund yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am comme yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom dafa ne mooy royukaay yu ñëpp su fekkonte ne nag ay jëfam wala ay defiinam te ña ko doon gis dong la yam kon ñi ci des ñi ko fekkewul ñu mel ne nun nga xam ne jógee fi lu ëpp junni at lu doog a judd nan lañ koy mën a roye kon moo tax kon borom bi bokk ci sàmm gi mu sàmm diine mu sàmm dundu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dara réeru ci muy siiraam moo tax bokk na ci dégg alquran la ciy dimbalee jàng siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soo jàngee aw dundiinam nu ko sayyidatuna Aïsa waxe woon ne kaana xuluquhu alquran jikkoom yépp alquran la woon kon aw dundiinam soo ko dee jàng daf lay firil alquran su ko defee kon moo tax diine luñ ci wax di ci delluwaat ci déggiinu saxaaba yi ak ñi toppoon ci ñoom loola daf nuy musal ci ak réer daf nuy musal ci ak jàdd ndax bu dee bëgg yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak fonk ko ñoom kenn ëpp leen ci cër ndax borom bi wax na ko walladina maahu muhammadun rasulullahi walladina maahu ashiddaau ala alkuffar ruhamaau baynahum suñ borom moo leen taggee noonu ne muhammad ak ñi àndoon ak moom muy saxaaba yi ñoom day bokk na ci seeni melokaan dañuy tar ci ab yéefar waaye dañu yërëmante ci seen biir asiddaau ala al kuffar rohamaau baynahum moo tax kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu di ko teg ci place bi nga xam ne fi la borom bi tabaraka wa taala wax ne fi lañ koy teg ndax bu ñu ko ëbbilee ak teengal teengal googu ci la ñuy jaarale ak ëppal ba jàll ci ñeneen maanaam ñi ubbi buntub di teg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foo xam ne ci seen xel rek lañ koy teg jubluñ ci yonente bi waaye place la bu ñuy fàkkal ñeneeni nit suñu la fàkkal bala yonente bi noonu la meloon du nit daanaka bëgg koo jox cëri yàlla ba nga d'accord ci loolu nag ñu ne la ba mu fi jógee nag loolu daa jàll ci diw waaw loolee mu yoroon ba léegi am na ku ko fi yor su ko defee nag foofu la ñuy commencé dévier nit ñi nag ci cëri ya ñu waroon a jox yàlla ñu commencé di ko jox ay nit loolu bari na lu mu yàq ci pas-pasu diine loo xam ne cër ya ñu waroon a jox suñu borom tabaraka wa taala ay nit lañ koy jox te teengal ga ñu ngi ko tàmbalee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te di ca wax lu ñu xamul waxuñu ci li ci yàlla wax borom bi li mu wax leen qul innama ana basarun mislukum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan wax saa bu ma saa àtte ba pare daf daan wax ne kat man kat nit laa léeg-léeg ñaari nit joxe kenn ki daqalaay yi morom ma mën a maa àtte sax ba jox dëgg ki nga xam ne amul dëgg waaye moo gën a moo gën a mën a ñëw aw lammi waaye mu ne bu boobaa nag koo xam ne jox naa la àq joo xam ne leer la ne moomoo ko sa lammiñ wu réy rek moo tax ñu jox la ko kay def ak tëlee waxam moo tax ñu réere ak xam mu ne na nga yëg ne morsa bu ñu la daggal ci safara kon loolu yëpp day saxal ne kon basare gii mi ngi fi woon li ko taxal rek mooy lim ci teg yuuxaa ilayya qul innama ana basarun mislukum annama ilahukum ilahun wahid beneen ba mu ne yuuxaa ilayya waaye annama ilahukum ilahun wahid li ma tàqaleeg yéen mooy suñu dañ may wax yu waaye ga lu wax yu ñëwul nag ah kooku moom nit laa ci communiqué borom bi dee ko wax ne gis nga li ne ci ay xul ci alquran yoo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam la ñuy wax pour mu présenté boppam parce que toujours dañuy wax ne maane moom moo gën a foor nee na moo tax ma leen ko xul waxal ne laa amliku li nafsi naf'an wala darran gël mën a moo mënu ma sama bopp njariñ lu ma mën a xëccal sama bopp wala lor ju ma mën a dàqal sama bopp illa ma sha allah te li ciy firnde mooy walaw kuntu alamu alxayba la staksartu min alxayri wa ma masaniya su su fekkoon ne man yonente bi sallallahu alayhi wasallam luy bëgg a ñëw xam naa ko lu dul la ma yàlla xamal wala nguurug yàlla gi lu ma ci neex mën naa ko cee def kon nee na la staksartu min alxayri kon kay ma bari alal ak i doom ndax almaalu wal banuuna zinatul xayaati dunia taarub adduna mooy alal ak doom te ñaar yooyu yëpp yonente bi da koo ñàkk ñaar yooyu yëpp yonente bi da koo ñàkk doom gis ngeen ni mu ko ñàkkee ba yéefar yi doon ko tudde naan bàyyi leen ko rek moom abtar la abtar mooy koo xam ne aw askanam du continuer su faat ndax doom ji góor mooy continuer aw askan doom ji góor mooy jàllale saw sant waaye doom ji jigéen moom keneen lay tey jur fay doom ñu sant neneen kenn dut la ca xamati boo lijjantiwul naan gone yi may seen maam kenn du ko xam am maa nag ñi nga xam ne sa doom ji góor la leen jur moom bu ñu déggee ñu taw sa sant sant dañu xanaa ñu day sëtt moo tax comme nag moom amul doom ji góor ju màgg ay doom yu jigéen doomu la màgg la ñu ne bàyyi leen ko rek ab tar la ab tar bu faatoo rek mbiram yem foofu borom bi tontu ko ne ko inna saani aka ñi la bañ huwal ab tar ñoo ñooy ab tar waaye xoola ña ko doon wax muy abo jahli nag ñooñu kan moo nangu tey abo jahli di sa maam ah ak ñaata ni tey wax ne fi mu ne yonente bi seen maam ay sërif lañ ñaata ni da koy wax tey ah bari na te abo jahli ay doom yu bari la ju nekkul ñu muy seen maam mais kenn nangutu ko wax naar boo gisoon ne ko yow mii de xanaa satub abo jahli nga moom mosa mosakane moom moom da ngeen xulo waaye boo ne ko yaay sëtu yonente bi xanaa sëtu yonente bi da mu ne xayar askay moom la kon kañ ne woon yow dootoo am i tët ñëpp bëgg nañ di tëtam ñene woon ñooy ñooy am i tët kenn bëggatu la doon seeni tët moo tax mu ne ko inna saali aka ñi la bañ huwal abtar ñooñu la seenu askan dagg ñooñu la seenu askan noonu la dagge kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne laa tutruni kama atarat an nasara ibna maryam daana wax ne bu leen ma jay parce que jay ak tagg bokkut tagg moom mooy wax lim doon boo ne abduhu wa rasuluhu foofu la taggeem rasulullah tagg mënu koo weesu mooy tagg tagg mooy wax nit ki li nekk ci moom jay nag mooy di ko waxal loo xam ne moom nekkul ci moom moo tax mu ne bu leen ma jay comme ni nasaraan yi jaye isa ibna mariam naan ibnullah mooy ñoom dañ ne doomu yàlla doomu yàlla kuñ ko wax dañ lay jay doomu yàlla kenn doonu ko lam yalid walam yulad mattaqasa allahu saahibatan wala walada yàlla wutul jabar wutul doom kon nag kuñ ne doomu yàlla nga dañ lay jay mu ne bu leen ma jayee comme nañ doon jaye ibna mariam waaye Isa it bañ ko jayee moom jay jayeexuwul ndax ni leen inni abdullahi wa rasuluh moom nangam nga te yow nanguwoo koo doon loolu du la wàññi dara bañ ko bëgg a wax doomi yàlla nga def ne inni abdullah aataani al kitab wa jaalani nabiyan wa jaalani mubarakan ayna ma kunt moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne fa innama ana abduhu fa qulu abdullahi wa rasuluh man day jaamub yàlla laa borom bi ne ko qul in kaani rahmani waladun fa ana awwalul abidin ndéeg yàlla day nee ngeen am na doom man day duma doomam may première jaamam qul in kaana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin kon abdullah mooy aw tagg waaye waladullah moom aw xas la aw xas la te ak jëy la kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam màggal ko nag mi ngi ci topp sunnaam waaye du tàggee ni fu ñu ko tudde rek wala di def ay tant yu réeg di ay ay nag ak lu ne nga dugg ci ne damay damay màggal yonente bi dama ko fonk te dara la ci sunnaam nag doo ko appliqué loolu la wax ci sunnaam nga ne diine ju bees la xanaa ci yow la bees tax yow yaa mi ngi doog a yegg ci yow xamuloo ko woon waaye loo xam ne dañ la koy delloo ci alxuraan delloo ko ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga ne tey laa ko mos a dégg comme kon lu bees la mel na yow da ngaa xamoon lépp ba loo xamul rek lu bees la loolu ak réer la loolu ak cànkaate la kon yonente bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko mooy topp sunnaam qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni waaye saxaaba yi joxe woon nañ misaal bu rëy ci nañu bëggee woon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak nañ ko fonke woon ku ñu masaa waxal ne la yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na nga naan leen diw nee na donte Aboubacar nga leen tuddal nga ne leen Aboubacar day nee na wala noonu la ko gise dañ naan la duutuma waxanteeg yow mukk ndax naan la yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na nga di ma tuddal keneen ci wetam yow yow yow wootoo mooy wax ak yow ñoom foofu lañ tegoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ay àqam itam nag yi ñu ko ameel mooy di julli ci moom borom bi moo ko digle moo tax ñu ne julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam farata la benn yoon ci dund loo ko gën a defee say tuyaaba gën a bari waaye ñàkk koo def moom ba faatu moom bakkaar bu rëy rëy rëy rëy ndax borom bi moo ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne man salla alayya salatan lam tazal al malaikatu tusalli alayhi ma salla alayya fal yuqilla abdun min dalik aw li yuksir mu ne julli ci man benn yoon malaaka yi bi ñu deñ di julli ci yow li feeg yaa ngi julli ci man mu ne nag comme neex bari lan comme neex néewalal waaye nee na loo julli ci man noo gën a bari rek malaaka yi di julli ci yow julli bu tol noonu mu dellu waxaat ne awla naasi bi yowm al qiyaama aktaruhum alayhi salaata ki gën a yey ci man bu yowm al qiyaamee gën a yeyoo samam ramm mooy ki gën a bari lu muy julli ci man mu dellu waxaat ne albaxiilu man fukirtu indahu falam yusalli alayya mu ne ko nay daal mooy koo xam ne tudd nañu sama tur fi moom te julliwul ci man kon di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mat nay bari lool rawatina ci jotaay bu ñu toog ba nañu faa jóg ndax nee na kat bépp jotaay boo xam ne ay nit toog nañ fa ba jóge fa tudd ñu yàlla julli wuñ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amuñu benn garanti bu soobee yàlla mu mbugal leen bu ko neexee mu jéggal leen amma bu fekkee tudd nañ fa yàlla nag wala ñu julli fa ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jotaay ba luñ fa defoon ci bàkkaar yàlla dinañ koy jéggal ba noppi itam bindal leen ci ay tuyaab bokk na ci barab yi ñu war a jullee ci moom itam su dee dugg ci jàkk su dee ju dugg ci jàkk nga julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax allahuma ixfir li zunubi waftax lii abwaaba rahmatik soo dee génn nga ne allahuma ixfir li zunubi waftax lii abwaaba fadlik sooy dugg rahmatika ngay wax sooy génn nga wax fadlik loolu moo ne isaa marartum bi bil masajidi fa sallu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam su ngeen dee rombate ci jàkka yi wala ngeen di ca dugg na ngeen julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci barab yi ñu ci wala julee itam sooy taaya ba ca taaya ju mujj jë yi nga xam ne da ngay bëgg a sëlmal bu ko jeexal mukk te julliwoo ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci itam ci bu ñuy julee néew julee néew itam war na ci julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci itam dañ koo baril bisu àjjuma ndax nee na min afdali ayaamikum yawma aljumaa fa fiihi xuliqa aadama wa fiihi qubida fiihi nafqa wa fiihi saaqa fasiruu alayya min asalaati fiihi fa inna salaatakum maarudatun alayya nee na julli yi nit ñiy julli ci moom bisu ajjuma lañ ko koy wan mu ne kon nag bisu ajjuma na ngeen baril lu ngeen di julli ci man ndax ci lañ may gaaral mbooleem ku julli ci moom ci semaine bi bisu ajjuma la ñuy boolee wan ko yépp ne ko ñi yépp julli leen ci yow su ko defee moom itam mu julli ci ñoom ñaanal leen xewal kon di ko baril bisu ajjuma itam lu am solo la bokk na ci àtte yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag mooy nag bañ a fent dara ci diine diine ñu yemale ko fi mu yem képp ndax diine jëfi borom bi tabaraka wa taala la yàlla nag lu muy jëf day mat day mat yàlla mboolem li mu bindoon ba léegi dara sensiw ci jant beeg weer weeg asamaan seeg suuf seeg nit ñeeg bàyyi ma yeeg yenn lu nekk na mu leen bindee woon ba léegi noonu la ñu mel kon jëfi suñu borom tabaraka wa taala day mat diine rek ci la bokk borom bi ne al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum al islaama diina akmaltu la kamaal diina ji am na kamaal bokkul ak tamaam tamaam tamaam moom mooy lu yegg kamaal nag mooy lu mat bu gisee bi mu ñëwee ci nicma mu ne atmamtu fii moom yeggale na fii xéewal mais xéewal gi matagul xéewal gu mat dëgg aljana la am ndax xéewal boo am ci rek am na ku ko fare kaw moo tax mu ne wa isaa raayta samma raayta naiman wa mulkan kabira foofa da ngay dem ba gis ko soo demee ba xool foo fee ci àjjana ba ngay gis nag naiman wa mulkan kabira amma diine ji nag moom dafa mat ak mal la wax lu mat nag kenn du ko yokkaat mis xool ko ci nit rek nit buñ ne woon nañ ci ñaari bët yi nañ nitu léegi daal daa war a am ñetti bët waaw nit daal passé na ñaari bët njuuma lay daal di doon bu ko defee ñetti bët koo daanee moom ci mbedd da ngay daal di daw bu ko amoon ni mu matee nga xam ne kenn bëggul sa nopp bi ñu rondal ko centimètre wala sa bët bi ñu rondal ko centimètre wala sa gémmiñ gi bu toppee centimètre sax ñu ne xanaa musiba ko dal loolu nga xam ne noonu la mate nag di jëfe ci ñu borom tabaraka wa taala waaw loolu tax duñu ko nangu ci diine bi noonu nit ki di ñàngee buñ ca yokkee dara wala buñ ca jéemee wàññi dara noonu muy ñaawee diine itam suñ ca yokkee wala ñu wàññi ca noonu lañ koy ñaawale kon bokk na ci respecté yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak jox ko cëram adamul ibtidaai fi diin ndax saa yoo fentee ci diine day mel ne yaa ngi koy tuumal ndax benn lii daf koo xamul woon daf koo xamul woon kon sax tuumalaa ko borom bi tabaraka wa taala nga tuumal ndax moom mi ko digaloon mu jottali kon am na luñ waroon a jottali te jottaliwu la wuñ ko wala dañ ko koo jox ba noppi te jottaliwu ko te borom bi nee na wa ma ala rasuli illa al balagh yaa ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik kon su fekkee da koo jottaliwul wala nga bëgg a wax ne ñeneen la ko jottali daa am ñu feeñu ci ay jënt wala leneen gannaaw bu fi jógee am leneen lu mu leen wax loo xam ne waxu ko woon saxaaba yi kon kooku yaa koy tuubal ak wor ah tey kon ñooña lu ñu màgg-màgg defe naa ne saxaaba yi àndoon borom bi tagg leen wala si na maahu ñi àndoon ak moom ñooña la ñu daj ak fa ñu ko egg ci mbëggeel jàpp naa ne bu amoon lu muy beral secret ñooñu la koy beral te ñooñu taxul mu beral leen dara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñëpp lañ ko yónni qul yaa ayuha nnaas inni rasulullahi ilaykum jamian jamian dafa la kon ñu ngi lay yónnee ci ñëpp na nga naan diw kaay ma gis la di wootee ci roq di deyaate te ñun la jël boo demee neel waa baas ba nangam ak nangam ak nangam nga ñëw xool kenn ekaay mu ñëw nga dégg ekaay daal daal dem dara dee leen secret yooyu te yow waxoo ko ñëpp ñu ngi lay yónni woon ci ñoom kon yow bu boobaa loolu ak war la moo tax kon kuy wax ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na lu mu beral ñenn wala nga wax ne am na loo xam ne ci diine ji da koo xamal ñuy bàyyi ñële booba yaa ngi koy tuumaal ak ñàkk a jotal li ta bañ na ko ba discours ba mu ca def te hajjatul wadaa nga xam ne li ëpp ci jullit ñi booba ñi ngi teew ca la fàttewaat arkaan fàttewaat arkaanul islam yépp su bu waxee mu ne ndax jotal naa ñu ne jotal rek mu ne allahuma fashat kooku di wax ak public boobu nga xam ne ëpp na fukki junniy nit jamono boobu mu ne ndax jotal naa kooku kon amul lu mu doon nëbb ci jotal gën doon jotal kon nag ñu wattali ko bu baax di fent ci diine ndax borom bi kat nee na fal yahdari alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim na wattandiku na def attention ñiy juuyoo ak ci ndigalam fitna dal leen fii ci àdduna wala mbugal mu métti dal leen yowmal xiyam te fitna bi moom jullit ñaa ngi koy dund bokk na ca la gën a nekk fitna rek mooy taqaliko bi jullit ñi taqaliko fitna la ci seen biir fitna la ndax tàqalikoo ba day andi noonoo noonoo day andi majeel te bañ ku gëm yàlla musiba la borom baa ngi doon wax naan walladina jaa'u min baadihim yaquluuna rabbana axfir lana wa li ixwanina alladina sabaquuna bil iman wala tajcal fi qulubina xillan lilladina amanu yàlla yàlla boo def ak mbañeel ak coxor ñu koy ëmbal ku gëm yàlla te nag bu ànd amul nag loolu dana am bu ànd amul jullit ñi ànduñu rek noonoo xeebante dana am seen biir mbañal googu dana am su ko defee fitna daal di dugg ci seen biir su ko defee itam seen i noon daal di am fa mu jaare ci seen kaw jullit ñi ni ñu leen di sonale ci jamono bii dara waralu ko lu may fitna ju ñuy dund ci ñàkk a ànd borom bi dañu inna allaha yuhibbu alladina yuqatiluuna fi sabilihi saffan ka annahum bunyaanum marsuus gis nga nañ ko misaale ci mbir moo xam ne ku ne tëngeeg sa bët ab tabax kenn ku ne gis ne birig ba nam jàppaloog morom ma dénduñu rek birig yi boo leen sasale woon dong te taqalowuñu dañuy daanu ci sa kaw ka annahum bunyaan marsuus birig yoo xam ne dañoo taqaloo benn bi bu fàqee bi ci def day fàq ànd ak moom jullit ñi seenu taxawaay ci wàllu ànd noonu la war a mel te li leen di boole lépp it nag mi ngi fi muy alquran ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam buñ ci yemee waaye nag bu ñu fentee la leen dugal ci nag mooy tabax bi nag nga dem di ca wut ay xar-xar ay fett-fett foofa la noonu yay jaar di ko yaatal di ko yaatal ba tabax ba daal borom bi della wax ne wa man yusaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا سورة النساء نينا ومن يشاقق الرسول كيف كو خامن جويو nga ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nii la nga ne samay aada ak sama baaxi maam wala sama nangam lii la andi leneen teg nee na gannaaw boo xamee ne leeral nañ la njubug yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu leer nga topp nag weneen yoon wu bokkul ak li jullit ñi jaar ndax kat diine saa boo ci dugalee loo xam ne jullit ñoo ko wax ñu dina ko laajaat xamal ne lu bees la ci diine diine lu universel la lii nga ciy wax war nga ko mën a wax ca Siin ña fa jàng diine dañ lay comprendre nga wax ko ca Inde dañ lay comprendre nga wax ko ca Iran dañ lay comprendre am naa soo ci boolee loo xam ne nag biir réew mi nga dëkk sax am na gox yoo xam ne soo ko fa waxee ñu ne loolu dul xamunu ko kon loolu xamal ne loo yokk ci diine la loo yokk ci diine la moo tax mu ne wa yattabi xayra sabilil muminin kooku jaar na ci weneen yoon wu bokkul ak wi ñu xàllal jullit ñi te nag loola moo koy taxaleeg jullit ñi diine saa boo ci dugalee lu ci bokkut nit ñooñu mënuñoo xam loola mën na nga jël kenn nit rëyal ko teg ko ci diine teg ko ci place boo xam ne ci diine amuñu ci tegtal buy tegtale ne tegu na foofu yow daal yow la neex rek ci wàllu askan wala ci wàllu cosaan wala wàllu fekk say bàyyi féete woon foofa nga jox ko cër boobu bëgg nag ñëpp nag nangul la lool nag ku la ko nanguwul doo mën a ànd ak moom ci diine nit ki lu muy mën a nanguwul lu mu xamul lu mu xamul loo xam ne kenn mënu koo layal ci diine yow kay koo am ci diine te muy boroom xam-xam di la jàngal diine na nga ko respecté na nga ko jox cër waaye foo gis keneen ku mel ne moom it nga jox ko même cër boobu waaye nag soo ca bëggee boole nag loo xam ne yow rek kat yaa ko ca yokk di ko wax waaye mënoo caa am benn dalil ah loola moom du la mën a weesu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa radd diine yi l'islam ku ci sos loo xam ne bokku ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngalewu ko woon bu yowmal xiyaamee jëmmi loola lañ lay delloo eddu la ci fay tuyaaba xam nga yowmal xiyaam ku ci delloo sa julli sa julli ñu ne sa julli gaa ngu noonu loo koy dooy julli wala sa koor gi sa koor gaa ngu noonu sa la nga defoon daal ci diine borom bi moom dana ko fay tegal rek soo ñëwee mu jox la ko ndax moom lu waay def moom da nga ko fa fekk moom alimat nafsun ma qaddamat wa axara wa wajadu ma amilu xaajara lu fa waay jëfoon da nga ko fa fekk su fekkee ne lu dëppoo woon ak alquran ak sunna la yàlla dala koy fay moom tuyaaba jàlla lay fay amma su fekkee lu wuute woon ak moom la rek soo ñëwee jëmmi loola nga fay fekk borom bi tabaraka wa taala daal la fay delloo kon bokk na ci ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak fonk ko ak dëggal shahadatu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bañ a yokk dara ci diine bañ a am xulu bañ a teengal itam la ci jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wàccee ko place bi ko boroomam teg ak itam moom it place bi mu nga xam ne moom la leeral ne fa la nekk te mooy abduhu wa rasulu sahaaba yi mooy guñu mooyoon ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ak wattandiku guñu doon wattandiku di wax ci moom loo xam ne amuñ ci dalil loolu jullit ñëpp war nañ koo roy ci ñoom xam nga nit ñi wax ci diine ak waxal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen a yomb lool lu ñu wax rek daal na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na woon wala nit ku baax sàngam nee na woon te wax dafa war a am kell la wax dañ koy yeew day am fu muy yeewu waaye kenn du ko bàyyi noonu rek muy lang di dem waaye fu waay di wax wax ja lu mu rëy rëy rëy li feeg yeewoogu ko wax ji bu mu amagul ci yow wëlal ni nga ba mu waxaa wax ba noppi ba fa mu yeew wax ji waaw yeew nga sax la waroon a tàmbalee borom xam-xam bu ñu daan wax buum gi la ñuy lay njëkk a tuddal an fulaan an fulaan an fulaan an fulaan wax la buum gi ba pare doog laa tuddal an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne wax ji kon am na datt wala qaala allahu taala daal di jàng aaya ba nga xam ne kon wax ji bi mu ko daataan wax yeew na ko ci waxi borom bi tabaraka wa taala ba pare waaye nag nit ñi nag bi ñu nangoo ku leen di wax ci diine loo xam ne du am dalil wax ja daal na neex ci seeni nopp saa bu naqaree ci seeni nopp itam du ñu seet ba xam dëgg la wala waa ji moo ko waxal boppam waaye daal gannaaw naqari la du dëgg bu neexee dëgg la ñooñu mooy ñoo xam ne toppatuñu ak njub moom la borom bi daal fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwaahum te wa man adallu mimman ittabaha hawaahu bi gayri hudan min allah ana kan moo gën a sànq koo xam ne ba neexam la topp léegi wax ja buy dem bu jógee ci waxtaan dana waxtaan wa neex na waxtaan wa neex na neex kenn mënu ko wax waxtaan wa am na njariñ la war a wax am na njariñ mais du fekkee neex na sa bakkan ngay na fekk mooy wax nañ fa lu la neex neex na waxuñ fa lu la neex nga ne waxtaan wa neexut te waxtaanu diine moom dafay am njariñ waaye du neex ak a naqari sahaaba yi noonu la ñu ragale woon kon waxal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu wax ndax moo ne woon laa takdibu alayya fa innahu man kadaba alayya falyaliji nnaar mu ne ah bu leen ma fenal de moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam hadis bi muttafaqun alayhi la mu ne képp koo xam ne yaa ngi may fenal di ma waxal loo xam ne waxuma ko nee na kat may moo ko xam ne dee rek moo la fee tàbbi safara moo tax sahaaba yi bool buñ leen masaan laaj ñu toog ab hadis dañ ko daan jiiñante koo wax mu ne la laajal diw laajal diw bala ñoom masa wax rek ñàkk pexe moo leen di tax a wax dañuy dem ba wax di sës ci ñoom ñoo xam ne nëbb xam-xam moo fi bëgg a sës ñu doog a wax waaye daawuñu xëccoo mu ko wax léegi nag jamono ji xëccoo wax ku ci joxul parole sax nga ne lu tax joxuñu ma parole joxuñu ma parole su fekkee wax moom fitna la da ngaa war a dem ba nekk ci mu par amoo pexe ba nga xam ne nëbb xam-xam moo fi bëgg a sës te li ñuy wax yow yaa ko xam ah boobaa nag ak ba mën a xew ah war nga ko faa leeral moom doog fa jógee kon daal ci mujj suñu bëggee dëggal maanaa ñaari baati seede yu ñuy wax muy ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dañuy tënku ci alquran tënku ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu tënkoo ci alquran al karim dañu dëggal maanaa la ilaha illa allah bu ñu tënkoo ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañu dëggal maanaa muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yooyu ñaari miir la yoo xam ne ku ñu seq dalay miir ma nga fixé wu buntu aljana la fixé ji dooj boo génn boo génnul ñaari miir yooyu loola waay wax te gisoo ko ci alquran doo ko dangoo topp gisoo ko ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam doo ko dangoo toppam lu mu ko réyal réyal ak lu mu ko naatal naatal yaa ngi ci yoon bi di dem yoon woowu nag aljana la jëm wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu mustaqim direct la def aljana borom bi bi mu wootee ne wallahu yadoo ila daari salaam woo naa leen aljanna dafa xàll yoon woowu fixé ko ci buntu aljanna kon nag il faut julit dafay nangoo nag dër bopp bañ a nooy bopp ba lu ñu la wax rek nga daal di wamatu topp lool suñ borom dana lu la waay wax dama laa joxum xel na la andil dalil yàlla ci boppam sax nguuram gi sax day andi ay lay di ko layal qul haatu burhanakum in kuntum sadiqin wala jékki-jékki na man arat laay fanaan damay naaw ci jaww ji waa nekk lu lu may wan na loolu dëgg la nga ne ah askay kooku kay li mu wax dëgg la déedéet am xel nga yor lu la waaye wax na la andil burhan même yonent yonent bu ñëwee nag yonent la te amoo dalil buy tegtale wan lay mujisaat am nga droit proposé ko mujisa ne ko luy dalil dem yonante nga am nga ci droit li mel ne ki ñëw ne la homme de homme de loi la ndawal buur la boo ko wóolul ba ne ko wala carte provisionnaire la ne ko ana sa carte wan ma carte bala nga maa jàpp kay wala ngay nga may sisir wala nga may witte kay wan ma sa carte yonente bi bu ñëwee naa la yàlla nee na te amagoo ci benn dalil ne ko wan ma lu may tegtal ne yow mi yàlla moo la yónni moo tax waykat wane amma ala sidqihim dalilu fa mujizatun anzala aljalil amma dalilu ala sidqihim fa mujizat lii tegtal ne yonent yi ñu dëggu leen ci li ñuy woote mooy mujisaat yi leen borom bi tabaraka wa taala defal kon borom bi dee na qul haatu burhanakum in kuntum sadiqin andi leen seen firnde andi leen preuve bu fekkee wax ngeen dëgg même borom bi tabaraka wa taala jékkiwul jékki rek ne man maay seen buur ak lu mën a xew jaamu leen ma bu leen laaj nag nan laa doone seen buur te def ko layal ba mu leer ci alquran allahu xayrun amma yusrikun ndax yàlla moo gën wala li ngeen koy bokkaale am man xalaqa samawati wal ard gis nga muy lim wa ansala lakum min assamai maan fa ambatna bihi xadaaiqa zaata bahja maa kaana lakum an tunbitoo sajaraha a ilahun ma allah ah yàlla samp na nga ko ko mën a fee ah amman jaala al arda qaraaran wa jaala xilaalaha anhaaran wa jaala laha rawaasiya wa jaala bayna albahrayni xaajisan a ilahun ma allah bal aktaruhum la yaalamuun amman yujibu almutarra ida daa wa yaktifu suua wa yajcalukum xulafaa al ard a ilahun ma allah xalilan ma tadakkaruun amman yahdiikum fi zulumaati albarri walbaxr wa man yursilu riyaaxa busran bayna yaday raxmati a ilahun ma allah taala allahu amma yushrikoon nga kon borom bi yooyu muy lim dina ci jox preuve moo tax mu ne haata xalqullah fa arooni maata xalaqa alladina min duni ah man yàlla lii laa def wan leen ma keneen ñi ngeen may booleel lu ñu def ku mën a defaru sànq léegi ah ah mënu ko waaw kon nag loolu kon ci xel rek moo tax gars yi dugg sabar ëllëg lu ñu wax law kunna nasmaw aw naqilu kon maa kunna fi ashabi sa duñ doon dégg wala lu amoonum xel duñ dugg sabar amu bokkaale moom foo ko fekk da ngaa éliminer xel bokkaale foo ko fekk da ngaa éliminer xel daa koy fan wax ki ñu jël ab béjjën laxas caw morso am na lu ñu ca sox takkal nga la béjjën bi moo lay aar waaw béjjën boobu kam taxoon la aarul ba jaay ko ba béjjën ba ne ca dën ba xar moom taxoon wala béy béy moom taxoon moomoon béjjënu original ba yow ñu jox la xottu béjjën wa gannaaw béjjënu original ba moo aarul borom yow ñu jox la xottu béjjën wa soxal la ko ni la mooy aar sa kër nekkin di kooku ah ba noppi itam nag waa ji la mu lay laajaat te béjjën ba moom mooy lim la dig ne moom ngay am la wala sa wërsëg day ubbi ko ba noppi nag laaj la ci sa wërsëg fi nga jot a am fi nga indaale xanaa moom ubbi ko léwul moom mi moom béjjën bi ba moom moom mi ko mën a defar kon boo jëfandikoo xel rek bokkaale ku jëfandikoo xel doo ci tàbbi waa ji lim la koy weccee béjjën bi mu laxas sa ñaar fukki dërëm yëkku ko gënal yow nga jëm béjjën bi jënd ko dix mille franc wala lu ko ëpp moom dix mille yooyu la gën a soxla ci béjjën bi moom kooku kon boo amee xel moo tax ñooñu ne bu nu xel la woon wala nu nangu woon a dégg boog ñi nuy wax li jóge ci yàlla law ko naa nas maw gis nga nas maw dégg boo xamul del del laaj di dégg aw naqil wala nga jëfandikoo sa xel ñu ne kon boog suñu loolu daloon kon maa ko naa ci asaabi say borom bi ne faatara boobu bi zan bii ñooñu rek ñu reconnaître seen bakkaar ñu reconnaître kon nag mbokk yi nañu góorgóorluwaat bu baax diine yi l'islam du diine juy ràpp li nga xamee ne yàlla li mu bindoon dara ràpp ci weer wi ba léegi bu fekkee na mu meloon la mel weer wi ràpp jant bi ràpp nit ki liir bi bu juddoo liir bi judd tey moom nit ñi judd woon bi yàgg ñooy am képp kër yëpp lay am du ñu nit ñi dañoo yàgg a yàgg a judd ba ku juddoo léegi foo nit lay doon déedéet ku judd ni nit ñi mel lay mel garab yi dañu meloon la ñu mel